mercredi bi dinañu lancer d'ailleurs les douze grands travaux de la mairie bokk na ci l'aménagement d'espace public parce que dañu bëgg Ziguinchor nit ñi di am fu ñuy doxantujee fu ñuy toogee féexlu ay places vertes bokk na ci l'aménagement de plateau sportif te bu ci njëkk mooy le stade Jules François Bocandé nga xam ne on va le mettre aux normes bokk na ci euh, voirie bi lu bëri nañ ko lancé ci ay pavage yu ñu war a def ak ay euh, aménagement de route pour ñëpp mun a accéder facilement seen quartier bokk na ci tamit euh, les postes de santé ak les écoles bokk na ci ñaari marché yu bees yi nga xam ne bëgg nañ ko tabax muy marché au poisson ak marché aux produits agricoles pour désengorger marché bu bi dinañu lancer aussi officiellement économie sociale et solidaire parce que dama ne woon mënoon nañu yem ci liggéeyu mairie kese waaye bëgg nañu xool ni ñuy jàppale Ziguinchor daw da na ndaw ñi ak jigéen ñi poser les premières pierres pour yan sànc yi nga xam ne dafay démarrer. loolu moom mooy euh, message bi ñuy adressé waa Ziguinchor particulièrement